salaamaaleykum mbokk internetu RSTV salaamaaleykum Rufisque Sénégal la télé qui vous rapproche de la réalité seen animateur seen xarit Prince Ji l' animateur du choix nee naa leen borom Birtas borom Firdas tey ma ñëw fii ci boo leen gisee géej gi gis fii ni mu mel ngeen xam ne maa ngi ci quai de pêche bu Rufisque ñu war leen a tracé town bi boo leen gisee li sol ngeen xam ne damay supporter les Lions du Sénégal ñi nga xam ne tey jii ñoo war a football jàkkaarloog Burkina Faso tey ji ma ñëw ñu jël avis population yi mool yi ñu jox ñu tamit seen xalaat ci li nga xam ne nii mooy match bi nar a xew tay jii nii si tuuti ma ànd ceeg jinne caméraman bi am njool topp ma ñu mbir taas ko firi daas ko balaa lépp di raas ñu dem ayca ñu ngi nii taxaw fii nga xam ne nii mooy ci quai de pêche bu sëñ bi na nga def tur bi la ça va maa ngi fi Racine la Racine Racine yow tey Sénégal Burkina Faso ñooy football lan moo ci sa xalaat xalaat bi kay amul xalaat xanaa senegal gagné rek loolu rek nga gis. amul leneen. yow léegi Sénégal ñaata la war a dóor Burkina. waaye la mu dóor doyul. mais yow Burkina rek du football ngeen douze fois fukki yoon ak ñaar yow ñaari ñetti yoon nga ko gañe mu gañe la ñaari yoon. tey jii dina uute. tey jii moom uute dina ko def. waaw Sénégal Burkina Faso waaw ñu waaw dañ koy ñaanal yàlla may ko ndam rek ci kaw Burkina Faso. moom la africain yi laaj daal football bu dëgër bi man tey loolu laa gis. ñu xeex parce yi dañuy dañ dañuy bëgg a yeb dëgg la ñoo leen ëpp technique ñoo leen taax football mais foog ñu tegal leen alxatiir tey daa war a metti ñu gañe leen ba pare dominer leen ci lépp nag ci lépp. muy dëgër di metti ñu xeex ak ñoom. billaahi Cameroun laa bëgg ñu bàyyi xel ne ñun ñu ngi fi parce que man man loolu la quoi man Cameroun la ñu war a dajal final dóor leen dóor yu metti ah lu may xalaat kay mooy ñu jéem a def fula ak fayda rek jéem a gagné match bi dem final jël coupe bi rek laa ci xalaat de. ah Sénégal Burkina Faso moom maa ngi ko gisee dina doon match bu neex dina dina metti nag du yomb nag mais dañuy ñaan yàlla rek pour jël ndam la incha allah. juróom waxtu yi fegee ba léegi ku julli yaa ñaan Sénégal yan nañu yàlla may ndam. yal nañ yàlla may ndam te ñëpp a fekke ka fi ñu jaaram bii passé yal nañ fa jaar in Sadio Mané ñëppaa ñëppaa leen di bégee entraîneur bi tam yàlla defal ka jàmma lii yen bi ma yónnee yàlla na ko yenn ko si darajee Seydina Muhammad métti na trop ku nekk xam na ne métti na waaye yal nañ yàlla may ndam si darajee Seydina Muhammad ñu ñëm ñu fekkee xanaa rek dem ñibbi coupe bi moom ñoo ko moom incha allah ren euh, ça va bon maay sama point de vue si bi Sénégal waruñoo footballé comme ni ñu footballé seen match précédent yi dañoo war a attaqué waruñu may Burkina Bay fu ñuy évoluer seen jeu quoi sinon bon ça va nous coûter cher quoi. l' équipe Burkina Bay c' est une équipe très offensive et défensive ils sont tous les qualités de football euh, en tout ce que le football euh, demande ils en ça donc l' de Sénégal doit prêter beaucoup attention. Bon, sur le plan défensif, bon, parfois la défense flotte trop. Quoi. Vu la fois passée, contre quelle équipe euh, les derniers précédents matchs-là Contre Guinée. Euh, contre Guinée euh, -Cotéa. Vous avez les Guinéens avaient marqué. C'est très facile. La défense a beaucoup laissé. Donc on doit faire un bloc offensif, un bloc défensif. On ne doit pas laisser libérer des espaces. Quoi. Parce qu'il faut faire beaucoup attention sur euh, Alain C'est un joueur très expérimenté. très efficace sur tous les plans. Il fait la différence à tout moment. Voilà. Et Sadio Mane aussi, il doit vraiment se montrer quoi. Il doit vraiment... Bon, ce qu'il fait à Liverpool, il doit faire ça. Ça reste quoi On attend beaucoup sur lui. D'après ce qu'il nous a, nous a montré, c'est bon, un tout petit peu quoi. pas là on l'attendait Sadio Mané. kon li leen Sadio woon doyul d'après vous. non des na des na lu bëri ah. léegi sa système défensif yow tey défense boo doon teg bon man flanc droite euh, euh, l'autre là comment il s'appelle le nouveau là. Bouna euh, mhm. l'autre Salou Ciss voilà. d'accord milieu terrain bi. le milieu de terrain, aujourd'hui, c'est un de Sekou Kouyaté. Il doit démarrer le match. Sekou Kouyaté, Euh, Idrissa Gana Gueye euh, Idrissa Gana Gueye euh, Nampalis voilà c'est un c'est voilà Nampalis Mendy Ismaïla Sarr. kon yow 4 tu prônes pour 4-4-2 ñu def benn 4-4-2. bien sûr. bien ah, sûr ah képp Burkina Faso bi. am na am na sama beneen waay bu taxaw fii ñëwal ñëwal. moom nee na d'accordul ci loolu noonu. Sénégal waaw am nañ ay qualité joueur 4-3-3 lañ mën a ñuy mën. mais 4-4-2 day mel dañoo ragal te du ñu am occasion bu baax. yow milieu terrain bi contre Burkina kan ngay teg. man ah dina am mam Pawlish mu nekk sama récupérateur. Mhm. ma jël euh, beneen boobu nu mu tudd sax Sadio animateur laa koy def ma dugal keneen mu demal ma flan bu laay jëm ma génne ko teg ci Ismaïla Sarr ñu xool ba xam. jaajëf waay topp leen ma nee naa leen Sénégal xoolal ñëpp ay coach lañ Aliou Cissé loo wax Aliou Cissé dama koy wax ne ko décourage problème na la gars yi wax lu ne mais bul gis loolu. yéene nga am ñun ñi yéene lañ am rek ku tegoon sa place lu gën a métti lay gis jàmbaar la nag man de loolu laa ko am lu ma koy rapproché. jox ma pronostic gu match bi ñaata ñaata lay mujjee. non baa ñu ñu sa 3 rek. ñaata. 3 0 amul leneen. 3 <laughs> si dara tegu. 3 bu ci dara tegu. non man moom gis naa 2 0. 2 0. wax ma kan ak kanay dugal bi non 2 moom dinañ ko am moom. en tout cas nañ am 2 daal. soobee yàlla. ñaata nga gis ne Sénégal war na ko mën a dóor Burkina Faso. mën na ko dóor 2 2-1. waaw jaajëf. waaw lu leer man démb dama ko gént sax kàr laa géntu nag. Ismaïla Sarr dugal 2 Sadio Mané dugal 2. Henri Camara mi ñu convoqué nag. ah Henri Camara ah daan ko convoqué mu ñëw rek comme que daan ko convoqué dina ñëw rek. waaw ah, kon baax na yow léegi 4 nga gis daal. 4-0 4-0 kay amul lam-lame. ah man de gis naa 2-0. 2-0 kan ak kanay dugal bii bi. <laughs> ah mënuma koo xam na ko. <laughs> non non da ngay ñuy définir rek kan moo war a dugal bii bi ñaari nit. soo ko trouvé am jol dig na la mayo. ah euh, nu mu tuddati sax. Euh, Sadio maane mhm. joueurs yi nag dama leen xamul noonu nag. ak Henri Camara. waa. man gis naa ba kat. kan ak kanay dugal. ah kan ak kanay dugal. Ah, mais joueurs yi nag joueurs yi yi nag joueurs yi nag laa laa jàpp. <laughs> saa yi gars yi jàppul tous waaw Sadio Mané. Henri ah? ah, sax. ah pas Henri Camara. dafa ñëwaat. Mamadou Niang waaw tamit bu duggee tamit day baax. Ah, kii nu mu tuddati Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr waaw. Habib Beye Habib Beye waaw. gars yi nee ñoom ñëpp dañuy dugal moom kaat la gis. man lii 2-0. waaw 2-0 la tey 2-0. 2 xam nga ne buñ dóoree 2-0 MBS dalay andil kon jeex na 2 la. MBS a sponsorisé sama émission 2-0 la wax moom ah. ah. man de xam nga ni gaan 3 euh, daal gis naa ko moom. 3 ñaata. trois 0 kay. kan ak kanay dugal. Bamba Dieng. Mm-hmm. Sadio Mané. waaw Ismaïla Sarr. <laughs> jaajëf waay Cheikh bi yow kan nga gis mooy dugal. Sadio daa war a dugal tey de. ak kan. ah moom laa gis daal moom war naa dugal moom. léegi yéen yëg ngeen ne ah, Mamadou ñaa ak Henri Camara Aliou Cissé da leen andi ci équipe bi pour ñu renforcer. pour ñu renforcer ñoom ñooñu noonu. waaw ah ñooñu gëm ma ni dinañu de. lu mais màggetum golo foo ko fekk day dese ay ngalaju. non non mais ngalaju yooyu noonu euh, mënut a saf booy yi booy yi ne jamono jii ngalaju yooyu mënu leen a saf. ah ngalaju yi mënu leen saf. ngalaju yi seew koyaate rek moom c'est bon moom baax na. jaajëf sama gars yi bëgg naa leen gis nga fii la tracé bi topp leen ma am njool du sonn du xaar di laa àndal fii a lañ fiy joxe ah tey dama supporter moo ma solal. Ibou maa ngi ziar Issa fii lépp dina baax tracé town bi lañ wax de ñu dem. ah Sénégal de moom football Burkina xam nga ne moom Sénégal day dóor Burkina loomul fenn 2-0 la max bi. 2-0 waaw. foo teg ni Sénégal day Burkina yow. dama rek dama wax ko. mais football football kenn mënul kenn. ah déedéet waaye nag yàlla am na lu may nit ñi. yow gis nga ne sa équipe moo mën équipe bu Burkina. waaw bu ci lu wér. kon baax na lan nga gis bu Sénégal gagné. ñaata. 2-0. kuy dugal. Sadio Mané. ak kan. Hmm. Sadio Mané ak kii. donc xam naa benn sœur bi. waxuma beneen sœur waxuma. léegi dama lay wax benn affaire. Ah, boo waxee 2-0. wax ñaari joueurs yi koy dugal. ñaar ñooñu dugal match bi nekk 2-0 MBS moo la mayo. moo ma mayo kon Sadio Mané day dugal. ak euh, Matar Cissé. Pape Matar Cissé. Pape Matar waaw. jaajëf nee na moom Sadio Mané day dugal ak Pape Matar Cissé muy 2-0 Sénégal war a ok baax na eh, MBS da lay dig ma jox ma de. bu baax a baax a baax ni ngeen def ne rafatul na kolo lool allah yal na yàlla euh, fay leen rafetal seen taxawaay ba gën a jëm ca kanam ak kanam ak kanam kanam. ok merci. jaajëf di kontaan ci yéen saa su nekk nee naa leen bokk internetu RSTV fii la ñuy ndar li nga xam ne ni moo di suñu émission tracé town bi andoon ceeg jinne caméraman yi ma meen ni am Ndiol. bien gis nga di remercier bon coin route des HLM foofu nga xam ne ni ku fa dem defaru ba bien te doo mer waaw di remercier MBS nga xam ne ñoo ma sponsorisé par force ci sama émission saa su nekk damay en plaisir ak contentement ànd ak la RSTV la télévision qui vous rapproche de la réalité c'est Prince Dji c'est Prince Dji c'est Prince Dji